Touba nag fas yéene am li ñuy wax ab camp bu GMI loolu nag bàyyeekoo ci kàddu yi ki nga xamante ne nii dafa ñëwoon ci kanamu Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadre mi nga xam ne mooy yor kàddu yoonu murit di ki nga xamante ne nii mooy directeur bu sécurité publique di Abdou Wahab Sall. donc visite nag comme ni ma ko waxee si njël benn visite de travail ñëw xool euh, dëkk bi ni euh, ni yi fu ñu toll si wàllu liggéey bi si wàllu sécurisation bi. comme ni ko commissaire waxee léegi am na loo xam ne nemmeeku nañ ko fan yële passé surtout fii si Touba côté marché Ocass bi ak yenn kaa yoo xam ne aussi nemmeeku nañ ko si côté Mbacké donc yooyu nag dafa laaj euh, ay dispositifs yu adapté yoo xam ne fu ñu xoolaat suñu dispositif gën ko renforcer moom kilifa gi di fësal ne dafa ñëwoon ngir daal di mottali ab liggéeyam daal di xool li nga xam ne ñoom ñoo di ay nattaangoom yi fi nekk waaye tam ngir waxtaanaale ak Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr ak kilifa yi fi nekk ci ñàkkum kaaraange bi nga xamante ni jamono ji ñu ngi koy dégg fépp ci réew bu Sénégal muy amee ci dëkk bu sell bi ci tuubaa léegi nag dama ñëwoon si anam boobu laa ñëwoon pour jéem waxtaan ak samay collaborateur ngir Touba dëkk bu am solo la dëkk bu am importance la si wàllu yëpp. donc comme dëkk bu am solo la dëkk bu am importance la ci gis gis su président de la république si gis gis ñëpp ministre de l' intérieur directeur général de la police ñi nga xam man maa représenté tey ñëw fi nag ngir euh, mën a euh, saytu liggéey bi renforcer li nga xam ne moom lañu fi amoon ndax loolu gëj fi am walla mu bañ fi amati ñu liggéey si baax a baax Touba ak Mbacké lu yàggul rek renforcer nañu dispositif euh, humain bi mooy effectif yi wax Wahab Sall di fësal ne jamono jii li nga xam ne moom moo des ci li nga xam ne moom moo di camp Jëmi boobule rek moom mooy ni daal leen di jox ab màkkaan boo xam ne nii fa la ñu koy amalee waaye tam nguur gu Sénégal dina daal defaat li nga xam ne nii moom mooy ñaari commissariat yoo xam ne nii daana ñëw renforcer yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk waaye tam yokk personnel bi nga xam ne ñoom ñooy aju ci lu jëm ci kaaraange doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci dëkk bu sell bi ju Touba jëm ci wàllu police. waaye nag Touba il faut mu am dispositif Jëmi parce que dañ ko soxla ci wàll yëpp ci wàllu sécurisation ak wàllu sëriñ si yaa ngi fi dañ ko soxla donc loolu bu ñu mun a am site foo xam ne dañu mun a am foo xam ne day fii si Touba dañuy am fu ñu mun a am foo xam ne GMI dafa mun a nekk ñu mun a renforcer dispositif moo gënal ministre de l'intérieur moo gënal directeur général police loolu ñëw yokk si nag ñett commissariat yi nga xam ne moom la état bi nar a tabax fii si fii si Touba pour renforcer euh, sécurité bi. ci njeexitalu kàddoom mhm. moom kilifa gi di wax Wahab sàll ma ngay fësal ne li nga xam ne moom moo jëm bis yi ñu ma police dana amal li nga xam ne lañu wax ab opération coup de poing ngir daal di rek jàpp waaye itam teg loxo bépp sàmbaabooy boo xam ne jàpp nañu ne ab defkatu ñaaw teef nga file ci dëkku bu sell bi ci Touba.